بسم الإله الذي القرآن قد نزل بالحب باهي وأرجو له نزولا yàlla yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoon la ndax lu war la ولا نمو دي يال دي نياري قاتلة ينتبه الإذن العام أم ينتبه الإذن الخاص الإذن العام ويسن برام نمو سمتاني كوي فاتلي كو دي تبدو ترمي mu tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxal turu yàlla ci seen gémiñ di ko taatanu it ci seen xol muy dugg seen biir xol ñi di ko yëg ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك mu tagg gaa yi nga xam ne dañuy tudd yàlla moo xam ci seen lan wala ci seen xol dañ koy tudd waxtu wu ñu taxawee daañu taxaw di ko tudd daa daañu tëdd di ko tudd daañu diju di ko tudd suñu borom tagg leen suñu daale ne adkuruni adkurkum washkuru li wala takfuruni na ngeen may fàttaliku maanaam na ngeen may tudd ma di leen fàttaliku suñu borom du fàtte day ko waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal jullit ñëpp jullit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñu borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek bërëb bépp boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ko fa tudd yàlla ni ki bërëb yi ñuy wax nit ñuy demee doxe seen faje seen aadi maanaam euh, kanifa yi mooy duus yi daal araam na ku fa tudd yàlla boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ci turu yàlla da nga koy summi bala ngay dugg boo amee gàllaaj bala ngay dugg da koy summi wala maaw yi am nañ ci ay wax ñeeñ ñeeñu bu fekkee na dañ koo muur ni ki ni ñu ko dañ koo ëw ak der dagan am na ci ulama yi ñoo xam ne wax nañu loolu waaye itam nga summi ko boo ko mënee ba tey moo waaye boo ko dugalee ka nga xam ne dañ koo ëw der muur ko itam dañu bàkkaar nekku ca xam ne kon tur yàlla jullit daf ko fonk ba nga xam ne dafa jaxasoo ak dundam ci lépp loolu mooy ak isnul am li ñu digal bépp jullit suñu borom moo ko digal bépp jullit boo ko defee tuyaabaam bari na lool al isnul xaas nag mooy ndigal loo xam ne lu particulier maanaam lu ñu jagleel ñenn nit la ndigal loolu na mu demee jëmm joo xam ne dafay aarif billaahi benn seydina xadri jox ko tur wala malaayika jox ko tur wala mu gis yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci gént mu jox ko tur wala mu gis ko jahran mu jox ko tur ci gént wala koo kenn koo xam ne ci kenn ci ñooñu moo la jox tur wi sàkkal la lim boo ca yem muy nga di ko sikkar sax ca saxoo ko muy fët sa xol ba nga àgg ci yàlla waaye ŋàññi nañu tur yàlla woo xam ne da koy tudd ngir yokk wërsëg wala ngir am alal wala ngir am teraanga dangay ngay tudd yàlla namm ci jëmm yàlla rek boo ci nammee jëmm yàlla rek am na àgguwaay boo xam ne boo ci àggee suñu borom notal la bindee fi ñuy faj sa aajo wala mu yokk sa wërsëg wala mu barkeel sa lépp wala mu faj sa aajo الاسم الخاص بابو نك دي جيكي شي عارف بالله عارف بالله موي كان موي نيما واخون كيغا خامني ندا ملائكه ني امنا شي نيت ني خامني ملائكه لا ملائكه مو دي تربيه ترقيه لين با ادال لين سي الله امنا ньо خامني سيدنا خضر مو دي فينيو تربيه لين امنا ньо خامني يونس بي صلى الله عليه وسلم سي بوبم ولا كان ني شي نينت صحابه يي بو نك بن عارف ولا كان سي ني مت دون مولا جوخ تور wala koo xam ne ñoo ko jox kooka ba kooka joxat keneen di ko jox lante ba mu agsi ci yow ñu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax la waxtu waxtu yi nga di ko def te bàyyi woo ko insha allah da nga àgg ci yàlla ndax tur woo xam ne al ismul xaas lañ la ko joxe ak wum ci mën a doon day fóot xolu nit ki ba mu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi weddi naan kenn mënu la gis yonent sallallahu alayhi wasallam ñoom day xam nañ ne ñoom gisuñu ko kon te xamuñu it ko ko gis waaye bu ma génnoon jaar fii dajeeg bukki wala gaynde bu ma ñëwee bu ma nee daje naag gaynde wala daje naag bukki man de dama wóor man ñi nga xam ne it doyloo nañ ma ba xalaat nañ ne lu ma wax dëgg la ñoom daañu ko gëm ñi ci des duñ ko gëm buñ ne maa wan ma bukki bi bukki ba dem na la ma leen koy wane suñ mel ne rek ki mos suukar si kii moom mosoo gis suukar mosu koo dégg nga mos suukar xam ni mu neexe mu ne la wax manu mu neexe noo koy wax dog ko mën a misaal mukk ak yëg lay doon loo xam nag da koy yëg ci sa xol moom mënuloo yëgloo nit ki loola te jaarul fa nga jaar ba àgg fa nga àgg al ibnu xaas nag day fóot xol nit ki ba nga xam ne benn xalaat bu jëmul ci yàlla wala bu jëmul ci luy defar wala bu jëmul ci dimbali wala xettali wala yàqulu defar du dugg ci xolam ci istandaat boobu ngay mën a gisee sallallahu taala alayhi wa sallam nga gis malaayika yi moo gën a yomb nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon nii ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waare ngeen di ma déglu bu ngeen doon mën a wéyee noonu maanaam fa seen xol ak seenu yëg ni muy mel ci bu ngeen toogee ci sama wet ni may waxee ngeen di ko dégloo noonu ngeen sax ci noonu melo mel muy seenu melo da ngeen di nuyoog malaayika yi saxaaba yi ñu ci bari def nañ ko imran ibnu xusayn dafa daan nuyoog malaayika yi di wax ak ñoom benn bis suñu borom nattu ko ndax xam ngeen ne maqaama yu soree ku ca àgg suñu borom dana la teg ay piis toujours suñu mboroom teg ko benn taab boo xam ne dafa ko sonal guddi bëccëg nelaw di metti ñu ne ko da nga koy gàjj mu wér gannaaw suñu borom ko tegoon te fi mu tolloo tax mu teg ko mu dem gàjj ko tooñ ne gisatul malaayika mu di ko jooy di ko naqarlu di ko métitlu ba yàlla dogal taab gi daraat ko mu bañ koo faj ah suñu borom di ko di ko wanati malaayika yi ki nga xam ne mu ngi gis malaayika yi bu continuer ci li mu doon sikkar di ko wérd ba mu yàgg dana gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis yonent bi sallallahu alayhi wa jafe na te maqaam mu sori na àgg soog ndax boo ko jafee dootoo yàqule mukk dara dara mënatu la yàqal boo xasee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara mënatu yàqal moo tax maqaam mu kawe la tur yàlla dana ci yóbbu nit waaye nag buñ la ko waxee buñ ko yombalee nax nañ la buñ ko gaawalee nax nañ la day sax ba muy dindi gépp bëgg àdduna gépp bëgg daraja gépp noone ñu di diw def na ma nangam yéene naa ko lu bon wala danaa fay wala danaa def nii lu tax mu di ba def nii yëpp day dañ sa xol ba set leeru yonente bi sallallahu alayhi wasallam soog a sa xol kon tur yàlla yi waxtu tur wu mu doon rek ci al ismul am tur wu mu doon rek nit ki di ko sikkar te yàlla tax te yàlla tax dana fóot xolam dana ko womat jëme ci ngëm yokk ngëmum tur yàlla yi nag dafa diis am na lu muy bañ ak lu mu bëgg bul ñàkk laab di ko tudd bu ko tuddit te doo teew la bu ko nam bu ca namit benn njëriñu àdduna naan tur sàngam téere yi nee ñu boo ko dee sikkar da ngay bari wërsëg wala boo defee nangam na kii na yëpp day dox day dox nit ki ci yàlla day dox diggante ak yàlla du àgg yow yàlla taxul ngay wird li tax ngay wird mooy lan mooy wërsëg àdduna tax ngay wird mën na alal nit mën na yàqal nit mën nga wird téeméeraat doo lañ la waxoon doo ko gis doo ci am dara tur yàlla kon al isnul am dafa am al isnul am الابن الخاص ما أدل نت يلا الابن العام دنا سكال خلو نت دنا كده في جلد دب ما يكنا خم نت في سكر سخوكو تدي كتير تيال دعوة دنا أم لو خم نت كيس سكر دكو أم تي أبا تي ترانغا تي خيول بوش جمي فوق أم نتو فوق أم تيس دنا واحد فنيون يرن تبي سلام سلام man daal ku la sopp laa mu ne ko séenul fitna ak musiba keneen ne ko man de ku sopp suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko séenul ñàkk ak coono waaye nit ki rek fekkee ne bëgg na yàlla sikkar yooyu ñu wax ak jaamu yàlla yooyu tax xol day xiif di mar di ràgg di tilim xol bu tilimee dañ ko war fóot bu tawatee dañ ko war faj bu nelawee dañ ko war yee nan nga koy defee lu baax bu ca xeb lenn foo dégg ñu ne daañu fa waxtaane lu baax nga déglu ko te jéem koo jàpp foo fekk lu baax nga dugg ca foo fekk lu bon nga daw li la lislaam digal lépp nga di ci def li nga mën lépp ñàkk googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ak musiba moomu ak tartar yooyu da dem ba mu neex ci yow da dem ba mu neex ci yow ndax bu la dalee da ngay dal di ab diir bu tuuti rek nga dal di jànloog li mu lay indil nga gis ko jaxran li nga daan gis ci sa xol da ngay dem ba di ko gis ci sa bët nga xam ne bu adduna bépp daje woon ne la li ngay def jëriñul dara du jëriñ dara it da nga leen di ree rek waaye du tax nga am benn tomb sikki sàkk ci yow li nga xam ndax daf lay wóor ne yow gis nga te ñoom gisuñu ki gisul la muy wax ki gis ku gis ki gis du ko war a faale waaw kon gannaaw jamono bi dafa gàtt te laaj yi defe naa xaw na bari ci mbirum tur yàlla loolu lañ ci doon wax am na al ismul am ak al ismul xaas al ismul xaas nitu yàlla ki moo la koy jox wax la ñaata nga koy def kañ nga koy def lu tiis la nag diggante bi loolu da nga ko fi gis fu ne da nga fa jaar lu doy waar la waaye nag ki joxe tur yàlla mu mel ne docteur bi rek ñu koy faral di misaale docteur bi xam na ban jàngoro la dal xam na li koy faj xam na waxtu yu muy metti yi mu lay metti ak yàq ci waxtu yi nga xam ne da nga am jàmm ko defee it bu fekkente ne ku ñuy tarqiya la waxtu woo xam ne gis nga lu mu xamul day dem ci aarif bi ko joxoon tur yàlla bi ne ko nangam ak nangam ak nangam lay yëpp mu ne ko doxal defal nangam defal nangam defal nangam loolu daal di day loolu moo tax cheikhu tarbiya ngir àgg ci yàlla mënu la ñàkk cheikhu tarqiya mënu la ñàkk ndax cheikhu tarbiya war naa xam jamono xam xeeti réew yi ak la fa nekk xam biddewu asamaan yi lu ñuy jeexital ci suuf ak lu ñuy jeexital ci ñi lu ñuy jeexital ci gàncax xam yàqu-yàqu yi forme yi muy dikke ak fa muy jóge ak na muy dikke ak la koy fekk ak la koy dindi cheikhu tarbiya dafay war a xam nit ki nga xam ne bu àndoon fukki nit ñëw ñi nga xam ne médecin bi bu leen passé visite kenn ku ca mu xam sa jàngoro xam ne bokkale wuñu cheikhu tarbiya bu la nee jàkk rek war a xam luy sa jàngoro bu dee bëgg adduna bu dee rëy bu dee tayeer bu dee bëgg lekk bu dee bëgg nelaw ak bu dee bëgg daraja bu dee bari ak bañee di bañ nit ñi ci lu tuuti lépp mu xam ko xam la koy dindi kooku bokk na ci charte bi cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya nag moo féete kaw loolu waaye ci tur yàlla bi rek lañ doon wax euh, ki lay tarbiya moom fokk li ci gën a bari dana benn mu jox wala mu liggéey loola kon mbokk yi ngeen jéggal ma tàmbulee dem ci yeneen itte wax naa ba kon wax naa guddi wax naa bëccëg waaye sama yeddeel yi sama waaye bi sama fàttali bi sama yeete bi